alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. abonné leen ci seen chen malben bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi. ngir lan ngir eesal suñuy mbëggeel. eesal suñ kóllëre ci moom. ngir eesal suñu kóllëre ci moom. eesal suñu taalibe ci moom. ngir eesal suñu taalibe ci moom. yàlla may nañu ñaanoon nañ ko daaw ne yàlla ko fekke ren. yàlla may nañu ñaanoon nañ ko daaw ne yàlla nañ ko fekkee ren. ñu ngi nii ñun ñëpp fekke nañ ko. ñu ngi nii ñun ñëpp fekkee nañ ko tey alhamdulilah. wala li ëpp ci ñun fekkee nañ ko. wala li ëpp ci ñun fekkee nañu ko. li ci des nag. li ci des nag. mooy ne mbëggeel ak dëggu. mooy ne mbëggeel ak dëggu. jëf lañ koy wane. jëf lañu koy wane. duut loo xam ne làmmiñ a koy wax rek nga dem sa yoon. duut loo xam kenn ñëw leen ziyaara ma. moom oowut kenn ñëw leen ziyaara ma. yu mag yi ñoo ko façon di ko defal. taalibe yu mag yi ñoo ko façon. di ko ko defal. bu jëf ju baax joo xam ne. di jëf ju baax joo xam ne. ku ko donnu itam. ku ko donnu itam. lu baax rek nga donnu. lu baax rek nga donnu. ku ko donnu ba sànni ko itam. ku ko donnu ba sànni ko itam. sànni nga lu baax. sànni nga lu baax. ñun nag duñ ko sànni mukk. ñun nag duñu ko sànni mukk. te ñu ngi ñaan yàlla itam. te ñu ngi ñaan yàlla itam. buñ ko sànni mukk. buñ ko sànni mukk. yàlla ñu may dund yu gudd yoo xam ne. yàlla may dund yu gudd yoo xam ne. ak mu jot ñu teew fii defal ko ko. ak mu jot ñu teew fii defal ko ko. ndax yokkute rek lañ ciy jëlee duñ ci jële mukk rëccu. ndax jëf ci yokkute rek lañ lañ ciy duñ ci jëlee mukk ak rëccute. ziyaara moom li ci aju. ziyaara moom li ci aju. wax nañ ci wax ju bëree bëri. wax nañ ci. wax ju bëree bëree bëri. ci jamono baay ba léegi ñu ngi koy dégg ñu ngi dégg njariñam di dégg li muy bijji ci diggante taalibe bi ak sëriñ bi. su fekkee ne mbëggeel jëmm la. su fekkee ne mbëggeel jëmm la. roxo ga mooy ziyaara. roxo ga mooy ziyaara. ziyaara itam. ziyaara itam su wéree su wéree dana ànd ak xidma dana ànd ak xidma mooy loo xam ne moom ngay nëralee sa diggante sëriñ bi ne bëgg nga ko moom ngay wéralee sa digganteeg sëriñ ne bëgg nga ko moom ngay nëralee itam sa digganteek sëriñ bi na bëgg nga ko moom ngay wéralee nëral moom ngay xanaa xamoo ne xanaa nëral xamoo ko moom ngay nëralee itam wéral wéral nëral déggu leen eh, noppil ngay nëralee. moom ngay nëralee ci sa diggante ak sëriñ bii itam ne bëgg nga ko. moo tax ñu teew fi ñun ñëpp tey. moo tax ñu teew fii ñun ñëpp tey. képp koo xam ne wax nga ame képp koo xam ne yow wax nga xamee. may ñu rek nga génn jóge fii yëpp. may ñu rek nga génn yow jógee fii yëpp. ndax jëriñu dara. ndax jëriñu dara. su fekkee ne dana jëriñ ku ko ci amee daal yóbbu ko sa kër rek. su fekkee ne yow wax jooja dana la jëriñ. boo ko xamee it yóbbul sa kër rek. waaye may ñu ngir yàlla jóge fii. waaye may ñu ngir yàlla nga jógee fii bu ko fi waxee. fii ñi am na am mbëggeel tey jëf indi seen jëf yi ñooñu lañ fi soxla tey. fii ñi am ay am mbëggeel tey jëf yi ñooñu lañ fi soxla tey. ñu ngi sant yàlla bu baax. imaam na ñu ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah di ko dolli ci liñ ñu santoon. di ko dolli itam. ci liñ santoon. ñu leen di jotal itam nuyoo xalifa bi Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass. imaam ne ñu ngi leen di jotale itam nuyoo xalifa bi Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass. ak nuyoo mbokkam yëpp. ak ay mbokkam yëpp. ak ay mbokkam yëpp. ak ay nuyoo mbokkam yëpp. ñu nuyu. leen di nuyu. tey gërëm taxawaay bi. tey gërëm taxawaay bi. di gërëm rëj rëjloo gi nga xam ne yàlla rek ma ko waral. di gërëm rëcc rëcc loo gi nga xam ne yàlla rek moo ko waral. déggoon ngeen Baye wax fii Seydi Aliou wax fii ci kanam Baye ne. Seydi Aliou wax na fii ci kanami Baye ne. fekkee lu ñu indi la du jëriñ sëriñ bi dara. fekkee lu ñu indi la du jëriñ sëriñ bi dara. waaye sëriñ bi rëj rëj loo bi mu gis te xam ne yàllaa ko waral moom loolu rek doy na ko ci. waaye sëriñ bi rëj rëj loo bi mu gis te xam ne yàllaa ko waral. moom loolu rek doy na ko ci. rëj rëj loo boobu nag moom la ñu installé tey. rëj rëj loo boobu nag. moom lañ eesal tey. kon ñu ngi commencé liggéey bi balaa gën a guddi. kon ñu ngi commencé liggéey bi balaa gën a guddi. man teg naa suma teg suma at teg naa juróom-ñetti million ak genn wàll. imaam moom addiyam teg na juróom-ñetti million ak genn wàll. yaa yaa caam. yaa nen caam. toujours daf daan wax moom dafay tegu ci man. toujours daf daan wax moom day tegu imam. moom teg na huit millions. moom teg na huit ci seen chaîne malben bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi